mu ne wa innama yu zakka naka def na asakaal daynun bor in kaana ndem nekk na asluhu cosaanam aynan bi kee biye bi te nekk ci loxoom dafa amee wurus wala xaalis bi mu ne ci loxoom mu leble ko ndax leble moom xam na ne alal moom moo ko moom dana ko asakaal waxtu woo xamee ne ay na muy nag bu fekkente ne cosaani alal ji nga xam ne mooy bor bi dafa doon keesu nekk ci loxoom nga xam nga dégg ci ne bu nekkul woon ci loxoom du ko asakaal wala mu bañ di kees waaye nag aw arda tijaare rek wala muy marchandise mu yaxantu marchandise moo xam dañuy jënd ak di jaay rek nga xam ne pour jaay rek ko moo ko tax a jóg ñu di ko jënd wokk bi def dañu béykat ko ay leen mbir mu muy seer dafa amoon marchandise am marchandise mi daf ko jënd ngir di jaay rek mu jaay ko nag ñu fay ko muy keer ñu fay ko wurus wala xaalis wala ñuy wurus ñuy xaalis ba mu mët ko ci loxoom ñu teg ko ci loxoom bu boobaa moom it dana ko asakaal ko moom daf koy asakaal mu nga ne ko nag waaw kon marchandise moom xanaa daf ko jënd mu ne wala bi xëbatin bi xëbatin loolu dafa jóge ci may dañ ko may marchandise moo xam ne ñuy def seen mu yaxantu nga xam ne jaay na ko ñu fay ko muy kee mu nekk ci loxoom dana ko asakaal aw ixaalisin wala soppalante da nga maa amee lii may la jox jox ma ko fay sa nangam ji nga ko jox ma ko mu féete fa muy muy loolu loolu itam mu ngi mel ne hiba bi may gi mu ngi mel ne dañ ko may muy màtt bi moo xam ne bu ñu ko fayee rek daf ko jaay bu ñu ko fayee rek fee dégg nga te nga xam ne ngir yaxantu la asaka daf ci def day daal di taxaw day daal di waar ndax yéen a ngi dégg waaw dégg nga mu ne aw ixaale si ixaal boo xam ne kamula mat na njël kamula bi nafsi wala mu ngi dellu ci aynan wa qubida aynan kamula bi nafsi boo xam ne mat na sëkk li nga ñëpp mat na nisaab moom ci jëmmam moo xam dañ la koy jox par nangam par weer wala par ñetti fan wala par ñaan wala dañ la joxandoo lépp rek nga seet ko mu mat nisaab daal di ci waax walaw kalifa doonte alkuwoon na alkuwoon al mu tammu la ñu matal la te fekk la mu mottali woon mu ngi fi aw bi faidatin wala mu mote woon ci xarset boo xam ne déetuwu la ñoom dara jamaahuma loolu boole na leen ñoom ñaar milkun ak moom moomeel moo li moom moom kenn waxawlun ak at te atée ni leen bu mat at dana ko asakaal mooy li nga xam ne li mu mottali fii moo sànq c'est-à-dire mu tàmm xaw na niroog li nga doon laaj léegi ca waaw walaw tarifal mu tàmm bi fatil musannat il faut ay al maqbud awalan awi aw alladi tàmm nisaaban bil maqbud axar baada imkaan tasfiiriha aw kamula al maqbud nisaaban bi faidati mutajaddid min gayri maalin aw gayri muzakkar jamaahuma al maqbud wal faidatu milkun wa xawlu koy dal di asakaal fekk na lii nga amoon mësul woon asaka mu daal di alku amaat nga leneen alal wala moo xam ne moo xam faida la wala rifxu loola la bu fekkente ne yaa leen moom tamu at mi dellu ci rek asaka dal na ci dal di waar waaw dool de descente nay dem li nga aw bi ma addi ñun wala daal la nga xam daf koo gas jote wala li mu am woon dara nga xam ne kon xarset la alal maquli te lu ñuy wax jële fa kan alal maquli mazuri xaala wax ne kan lax mi wala ma mazuri waaw kañ naqul jërëjëf maanaam liñ jëlee ca naazir la jëlee moom ku ne misaalika istafaada asharata dinaani rek awal muharram wastamarat ila mislihi waqtada asharata dinaani xam nga ne asharata dinaani la woon bu njëkk dinaani min baynin xaala xawluhu فيزكي العشرين وسواء تقدم من الفائدة كالمثال أو تأخر أو تأخر أو تأخر بشرط بقاء الاقتداء إلى تمام حول الفائدة مفهوم لي؟ mu ne walaw farra donte dawoon na bi taaxirihi ci yéexeem ci yéex a jël mbell mi wala fayu bor bi wala nga xam ne lim ci jublu daw asaka moo tax mu def ko fukki fukki dinaaram yi nga xam ne amoon na ko ci muharram mu ay mu dellu war a fayu bor boo xam ne fukki dinaar la mu nga bu fekkente ne dafa daw bañ a bañ koo fayu kon itam day du ko asakaal ba tañu ko nëbee rek لكن في الدنيا لا يشترك فيه الحول على المقول المختار ما في الخلاف وهو قول القاضي إياد وإنما يزكي وإنما يزكي وإنما يزكى دين بالشروط المتقدمة لسنته ولو أقام عند المدينتين مبتدأة من حكم موين بر بر موم فكان جت جوج رك بن وقت وقت دفع بن يون دفع أسكال بو يعج أي أكثر كوكا أو في بفتن سنة في يخنك خمني موم موقع تاي ngir daw asaka te dañu waxoon ne na leen boole na ko nëpp mu boole leen ci ci moomeel ak ak mu mat liñ kon wax xawlun bu fekkente ne nag ci xawlu bi waaye jëfu ci day mel ne milki bi moom am na taxaq la def na taxaquq waaye nag sart yi matagul ndax duggagul loxoom waaw moom kay loolu la wax sax walaw farra anam walaw farra bi taaxir yi anam ko ak sira walaw farra la wax de walaw qarra kon walaw farra la waaw walaw farra almalik min alzakati kulla aamin bi taaxirihi ay inda almadini sinina maa tamakkunihi min axdi min laysa mubaalaxatan fi qawlihi mubaalaxa waaye bokk ci li def ci sanatin de bal huwa shartun mustaanafun وجوابه مقدر أي استقبل به حولا بعد قبضه ولو فر بتأخيره من بتاجر يوم وحوان دكوي جنة لسنة من أكله دال خالل كيلورو من ولو فر دونت دوان بتأخيره نانا لولو شرط مستأنف وجوابه مقدر أن استقبل به wala farra bu fekkee ne dafa waroon waru woon jëfe wala dafa waroon wax wa in farra bu fekkee ne dafa daw bi taaxir yi ci jeexeem itam bu at mi dellusee mu war ko mu ne inkaana ndem nekk na an kahibatin fekk mu xam ne dafa jóge ci lu mel nekk may dañ ko ko may mu nekk nag ca loxo ka ko may at la koy jëmale daf koy istiqbal aw arsin wala aw arsi jinaayat ne wala aw arsin rek wala tay wala tay man dafa gaañ dafa dagg baaraamu nit ñu war koo laaj war ko dañoo dagg baaraam war ko jox fukki jun fukki gëleen wala mu jox tay maanaam ku la dàmp daal ku ku la gaañ daal yoon dal daan ko dal ci ko mu war laa jox nangam ñu ne ko na la jox nangam ndàmpaay ndàmp nga xam ne ñëpp jëtagu ko mu ne kon nga xam ne dafa jóge ci may jëtagu ko wala ñu gaañ ko war koo fay te joxaguñ ko ko bu boobaa bu ko joxee day jubale at waaye laa an mustaran bu caa jënd mu jóge ci li ñu jënd nag lil xiniyati ngir woomlu boobaa ahu te mu jaay ko di ajul bi mu jëmu dikk nag ndax ba mu ko jëndee rek ki nga xam ne daf ko bëgg a jaay booba la asaka ñu wax mu jaay ko nag mu jëm dig dig bi mu ay diggante bi dat bi mu war a joxe asaka ji ay te joxegu ko bu ko defee jaay bi mu ko jaay bi ajal yi moom du tax ñu ne mën bu koo jot nuróowul ak ki ko gaañ te war koo fay wala ki nga xam ne daf koo may te joxe gu ko ko wala yooyu bokk bi kii moom moom moo ko joxeel boppam moo ko jaayal boppam kon mu ngi mel ne mu ngi ci loxoom. li mu koy wobloo waaye daf koo jaay. daf koy xam nga dugg na ci njaay la mustarin lil qinyati bu fekkente nag daf koo waaw daf koo jëndoon ngir woomloo xam kooku jënd ko ngir yéeneen yaxantu waaw waaye daf koo jaay mu jëmub jub daf koo jaay xam nga bi nga xam ne jaay na ko rek léegi day daal di nekk loo xam ne waaw mu ne bi inistara ba'iran masalan lil qinyati wa ba'ahu bi nisaabin li ajalin ma'lumin aw وأولى بحاله وأخ- وأخر قبضه لازم موقع يخجل فرارا من الزكاة فيزكي لكل من الأوامر ما فيه بعد بيعه قال هو- وهو ضعيف والمعتقد أنه يستقبل جهل ما بعد قبضه ولو باعه ما- بحال وأخر قبضه فرارا والأحسن حقه ولو ولو فر أو بتأخيره من بدون أن تكون وين- ولو فر بتأخيره من وقت wala mu waxoon bëgg way indi man waxam xawlaan wala mu wax kon mu xarit xawlu wa alihi wa sahbihi bi faayda ci tajal tajal de ci waaw waaw li borom mat mi wax borom saa bi ànd ci ndax ko ne dafa jënd ngir woomloo mu jaay ko bu ko jotee jubale ko ak ndax woomloo taxul mu jënd ko moom nag dafa calculé ne gannaaw daf ko jaay rek day yaxantu kon jënd na ca jënd gëm ko jëndoon ngir woomloo bu ko defee bu ko fa yéexee itam bu ko fa yéexee itam ak mu ñëw dana ko fa asakaal kii nag nee na bu ko jotee rek benn kii ndax daf koy jëndoon ngir woom.
woowu ñu xam ne mënuñ cee làq làqoo comme lu daw ak
mën na nekk waaye daf ci am masala yoo xam ne nit ki moom rek a mën a àtte boppam ñu mën na affaire fase bu amul seede bu amul se bu amul ay seede yoon mën la dal ci sa kaw ne la fase woon nga dal di leen teqale waaye bu amul seede yow ci sa bopp leer na la ne fase woon nga da da da da nga ci am bàkkaar boo delluwaatee te jaaree woo ko ci yoon yi fii yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne woon ngeen xam ne doomu aadama laa ne yéen danaa fàtte danaa juum ñaar nit mën nañoo layoo dara ñëw xëccoo kenn ci gën a xam fànni wax ak na mu koy nangu na muy fexe ba yey te yey ma jox ko ko waaye nag ku la jox loo moo mën na la wóor ne safara laa dagg jox la bu fekkee nit ki dafa jënd ngir woom lu mooy li denc rek am loo xam ne xëy na daf koy xalaatee ëllëg bu amee problème wala yu gën naa loolu moom yàlla rek ko mën a seede waaye yu xasul mukallaf bi iqraar yi maanaam dañ ko gis ci saani yu xasul mukallaf bi iqraar yi dégg nga waaw ban ban paas loo ne sax bu njëkk bi waaw waaw bu bu njëkk bi lépp mu ne kon fali kullin kenn ku ci nekk rek ci ñaari yooyu waxtu wu ayam rek waan ijaaratin fekkee ne alal jooju dafa jóge ci luyaas aw ardin aw aradin dex na aw ardin wala man man man ci marchandise mu faadit mu di mu ñu jot mu njëriñoo xaw la ne aw nañ ci ñaar xam nga dafa ne woon laa an mustaran lil qini bi léegi nag bu nekkatul mustaran qini an ijaaratin maanaam dafa luyee fasam wala toolam wala këram ñu di ko fay mu dem ba téye asaka bi alal bi ak mu ñëwagul mu jaay ko ci jëmu bi mooy masala moom mu waxoon soo ardin mu faat wala marchandise moo xam ne itam daf ko jógee neneen rek te dikki gann ñu fayee ko ko bor wala ñu may ko ko wala mu doon ko wala mu ndax kon moom waxtu wu ko ngëbee rek benn yoon boobu la koy jubale ba mu ñëw ak wala bu fa yàggee année kii bu nekk année bu nekk asaka war na ci ni ci waxee woon ci ba mu waxee ne wala xar bi tax yooyu xaw laa doon mu ni waxawlu mu mu tammi de wala mu timmi mu mu tammi waxawlu mu tammi ayub la ñuy mottali ci mina tanaami ma nga ca mat ga li nga xam ne moom dafa matul woon nisaab léegi am lu ñëw matal ko nisaab waxtu waa xamee ne nëb na la ko mot bi rek su fekkee ne xay na ci la ko war a ci la asaka ji war a tàmbalee war waaw waaw maanaam kenn kontewul lu dul maanaam bi mu bi mu matee boobu la ci asaka soog a war waaye laa it naq sub see yéen dafa wàññi ko woon ba adal wu bi gannaaw bu mu waree ba noppi dafa demoon ba asaka war ci mu wàññi ko waat kon nag booba li mu ñëbaat mu motliwaat ko kontewul te mat bu njëkk rek lañ koy seet nga xam ne su ma zakka maanaam ba adal wu bi su ma zakka toog mu mat mu mu asakaaloon al maqbool lu ñu yóbbu nga xam ne kay dafa matoon ba mu asakaal ko mu manqué gannaaw bi léegi li ñëwit waxtu ñu ñëwee konteetum ba mu amee alal ju mat asaka te génnoon ci asaka bu dellu see rek li génn si day fekk si loolu ba in xàll doon fi néewoon ne fa yokk togaa wala mu fayu ci bor boo xam ne bii dañoo dem ba mat na at kon itam bor booba atam ba mu ayee la muy seet waaye du suñu seet la matoon dañu asakaal ko boo indi xibaa de ah bon boo indi xibaa mu ne fekkee ne dafa fayu dinaaran ab dinaar fa aaxara dellu fayaati beneen dinaar ci beneen weer fastaa mu jënd di kullin ci ca- benn dinaar bu nekk silaatan benn silaa mu jënd baaxa mu jaay silaa boobu bi isrine ci ñaar fukki dinaar wala ñaari téeméeri dërëm lu seet fa in baa ahuma fekkee ne daf leen a jaay ñoom ñaari silaa yépp aw ahdahuma wala mu jaay benn silaa bi rek te fekk baada siraayil uxra gannaaw ba mu jëndee bi ci def ba moom ñaar ñëpp la jaay benn bi zakka mu asakaal al arbaina ñeent yépp dafa am dinaar ci weer bi toog ba beneen weer mu amat dinaar mu jënd ñaar ñaar ñëpp mu jaay leen jënde dara jaayaat ko lu mat asaka dañu seet su fekkente ne dafa jëndoon dafa amoon dinaar bi jaay ko fekk bala ñëwagul wala dafa fekk mu jot bi itam ba noppi am ñaari dinaar soog a jaay benn bi boobu loolu tax mu ne wa in iqtadaanam fa yuna dinaaran dinaar fa aaxara topp beneen ci beneen weer fastara mu jënd bi ku lim ci ku nekk benn dinaar bu ci nekk si la tam si la baaxa mu jaay ko bi isrina benn bi ci nekk lam ci jënd mu jaay ko ci ñaar fukki dinaar nu seet fa in baaxuma na am fekk rek boo boolee jaay ñoom ñaar ñëpp ay daaxuma wala mu jaay kenn ci te fekk waaye fekk jëndoon na kat bi mu koy jaay jëndoon na beneen bi ci def ñaa li mu am yi lépp lay atakaal dégg ngeen rek wa illaa wa illaa ahadan wa isrina de la bind saraabi mu wa illaa ahadan wa isrina wa illaa ay wa in lam yajid ahdahuma waaw waaw waaw ba'da shiraa'i al-uxraa bi an baa'a al-uulaa qabla shiraa'i al-thaaniya mooy mooy beneen beneen beneen suura bi def zakka ahadan wa isrina comme daanaka ngeen di xam ngeen lu tax de voilà ahadan wa isrina ñaar fukk ñooñu ñu mu njëkkoon a kii ndax mun la ànd ak benn ndax jaay na ba jënd te fi ci amagul benn ñaar bi mu jëndaat lii waaye dana boole dinaar boobu ak ñaar fukkam yi mu yi nga xam ne moom mooy kii bi bénéfice bi waaw asakaal yi wa gumma taqifat na lixtilaafi axwaali yi ngir jaxasoo ak ay mbiram aaxirul ajmi li aw wala jëm ci aj dëkk bi kenn mbir yi daal jaay jëm rek ci nekk ak ci bénéfice xamatuñu kañ la amoon bii dinaar xamatuñu kañ la amoon bee duñ jaayee ñaar yëpp la jaay yëpp jaxasoo xamatuñu ñun dégg dañuy boole bu njëkk ba ak bu mujj ba xam bu boole bu njëkk ba ak bu mujj ba rek moo asakaal waaw mu ne kooku nag aksul fawaid bi xam nga kooku ay ay bénéfice la aksul fawaid bi loolu wuti naan nag ay xarfet te konte ne ay xarfet la maanaam léegi dafa gas am mbel wala mu trouvé rikaal wala ñu may ko wala mu donn mu fàtte nag yan waxtu la ko amoon bu ci nekk bu fekkente ne bu njëkk ba fàtte nañ ko dañ koy boole ci ak bu mu jigéen asakaalan de ko لأن زكاة الربا يستقبل فرض مثل الأخيرة الأولى الذين زكاة الأخيرة قبل كما حولها ndax bu fekkente ne léegi comme xam nañ ne rek xamatuñu kan ak kan yoo xam ne bii moo jiitu bii léegi bu fekkee ne dañoo dañ ko dañoo delloo ci bu njëkk bi kon daana asakaay bii te fekk asaka waragul waaye bu fekkee ne dañoo bu mujj bi léegi dañ koy sopp kàpp ci bu mujj bi kon bu jotee duñ ko asakaale daanu asakaale bii asakaay bii waaw ñaari mu ne wala ko ci baaw ba tey daañu sàppe ak fayu bor bu mu fayu lu misli yi jëm ci kanam daañu ko boole mut la xam mbir mu duñu boyal duñu boyal ci lan misli yooyu mutaqaddimin ci kaw ñu ak yaano inna min ma fi qadri mut la xam ani taqyil bi baqaa'i lawali ila iqtidaa'i saani dégg ngeen ko de bu fekkente ne dafa fayu bor ci weer yi fayu bor ci weneen weer duñu leen boole mu mat asaka léegi mu ne kon wala iqtidaaw fayu bu njëkk bi dañ koy sàppe lu misli ci ñaareel bi mut la xam moo xam bi mu daataan fayu bee sànq na lee wala bu ñu ko daataan fay wala fay lu ma tax xëy na fay nekk sa daal dégg ngeen ñu ne fay nekk sa daal soo ca def fay xam sa juróom ba ada xaw leen gannaaw ba nga xamee ne am na at su Mustapha da topp mu mu mu jëriñu mu amaat asiratan fukk wa anfaqaha te mu dépensé ko ba ada xaw leen mu amee at su ma xasa ba topp mu faywaat asiratan beneen fukk zaka mu asakaal al asiratan ñaari fukk yu mujj yi walu laa gudd ñu ne xalaat même fàkkoon na xam si juróom xëy woon na xam si juróom léegi dégg nga mu ne ina ko fa baax te fa ina xalaat dafa fayu dañ koo lebaloon fukki dinaar waaw waaye dina defaat mu mu tax mu fay na xibaar faa xam sa tam ñun jëlee ñu dafa amoon bor mu fay juróomi dinaar ci bon fekk asakaaloon na ko matoon na bu ma jëmoon ci asaka ba mu ayee gannaaw mu amaat fukk fukki dinaar mu ne waxaal waxaal alayha de waxaal alayha xawlu indahu mu tey waa kamar ba mu amaat ak wa anfaqaha xam nga booba bu fekkoonte ne mat na ko asaka dana ca war wa anfaqaha ba'da xawliha mu dépensé ko fekk sant na ci moom ak moom moom fukki dinaar yi la su mag sa daal asaratan mu dellu fayaati fukki dinaar ci bor ba dinaari fukki yooyu xam nga ci juróomi dinaar yi amoon na ci moom at waaw bi mu amaatee nag fukki dinaar boo xam ne am na ci at mu soog koy sànq xam nga ba tey asaka war na ci gannaaw bi mu fo mu amati xalaat yi fukki dinaar ate te bor la fukki dinaar boobu nga xam ne mag na ci at am na ci at te asaka lu ko du sànq ak fukki dinaar yi nga xam ne itam moom it def koo fay ba tey nga jógee ca bor la moom it daf koy daf koy dal di asakaal ñoom ñaar lay boole asaka un fay wala asaka ba yàq sa ba daa wala yàq xam sa loolu adi adami kamaali ñu sàgg minha ndax dañuy dafa jëte wala ñoom dara fukki yi jëkk yi toog na ba mu am ak yoo xam ne asaka la ci bu la defee bor bi yoo xam ne ayoon na ayoon na ca sakaana nga xam ne wax bu ko fayoo rek war ko asaka léegi kon ñaar fukki ñaar fukki dinaar yi daf war a asaka loolu moom asaka na ko asaka war fukki ndax ñu dëkk ñu faat léegi du ko asaka moo tax mu ne فإن استطاع أن ينفينا حتى الجنة دينار بعد حول سناهم أي ثم استفاد تقم جنية أتنفك وأنفقها مدة بعد حول هذا باب معنى حتى حتى كان يقول لهم أنا أتنفك لا تقم خير أتنفك أن الزكاة بغرفة قلتك إذا كان مؤسسة لا أتنفك من أتنفك ولذا ليه؟ لا تعرف فما ينسب منها ولا أبدا قطع يبقى خمسة الأولى من الحياة عن الفقهاء ما أتت لي بحجه الخمسة المقصودات أي أي كلام النسب بين المقصودات ثلاثة بلاد ليه؟ المقصودات تصميم الفن وتحفيز إذا كان محفظا على أهل الدنيا يفكر ولا يبلع حق جاي يتعلق الأحكام بنقطة عند بوتة الحيوات خمسة في الهم يبقى بالباب بقى على الوحيد أتكلم بالباب อะไรอย่างนี้มันก็ไว้แต่เราไม่ได้ว่าจะเป็น ndax ak li ngeen di def dañ jëm ay avocat lañ nekk bu bu bu avocat war a nekk lépp lay boole avocat mais teg yàlla waaw ndax xam nga bu bu avocat yi ñaar ñaar fukki yi ñaar yi parce que mu avocat la ñu lay tamit maa ngi léegi bu avocat bu avocat la bu avocat la bu avocat la